Bon, assalamu alaikum. Je me présente, c'est Mohamed Diallo. Je suis un étudiant sénégalais résidant ici au Maroc, plus précisément dans la de Rabat. Bon, je suis là pour expliquer les filles que j'ai le séisme, le vendredi septembre 2023. bi nag mi ngi am ci intervalle 23h30 jàpp minuit heure Maroc. Dañu toog ba moment boobu noonu immeuble mel ni tremblé. mu xawee def noonu nag après bon du coup ma xaw ko sant mu copain copain yi ma bokkal appartement ma leen bon il paraît daf mel ima woon ñuy tremble de waaj ni ma noonu noonu dara xam naa bon mu jàpp kii day délire après man ci laa daw waaj bi may daw wàcc nag Maroc marocain yi ñu njëkkante ci escalier yi quoi bon ñu njëkkante def jur yi xam nga gars yi génn daw génn allah allah commencé bëri gars yi di yuuxu affaire yooyu noonu léegi sama mbokk tamit daw fekk si ñun ñëpp ñu génn ci suuf fees fa dell léegi bi ñu fa feesee ñu toog une trentaine de minutes après gars yi génnee benn communiqué ni bon effectivement séisme la du coup on n'avait pas le tout le monde était dehors ñu ci jardin ci espace public c'est-à-dire dañ doon da du la ñu yor oto tamit dañuy jël oto teg ci seen famille yëpp kenn ak moom moo gënoon wóor fa lañ nekk ba 4 heures 5 heures du matin ci lañ retrouvé ci appartement yi heure yi nii ñu ngi ci at ñu ngi ci apartement yi mais bon amuñu benn certitude nag li mu leen mën wax mooy fii à Rabat il y a pas de dégâts ñu ni autre juste affaire yëngatu mais amul mais au nord du Maroc, plus précisément dans la ville de Marrakech. Il y a beaucoup de dégâts matériaux en fait. Actuellement, il fait 17h30 heure Maroc. On a enregistré là pour le moment 1037 décès et 800 euh, euh, a moom deuxième état bi nekkoon dafa doon tëb pour sauver wu après affaire yi gaañ foofu blessure bu grave la woon instant yii il a rendu là aujourd'hui même donc paix à son concernant nag ambassade wala consulat jotaguñ benn communiqué bu jógeegum ci ñoom mais li ma leen mën a wax mooy am nañ fi benn groupe Facebook bu tuddu li xew Maroc c'est-à-dire toutes les sénégalais qui sont au Maroc ñu ngi ci groupe bi fa la ñuy pour le ñu ngi fay waxtaan fu kaay toll avec les dispositifs à prendre et tout ça mais actuellement li mu leen mënoo fii à Rabat et à Casa amul benn dégâts mais au nord du Maroc cest dans la ville de Marrakech il y a beaucoup de dégâts et les dégâts et les et les morts s'accroissent de plus en plus donc c'est-à-dire la situation s'aggrave de plus en plus là-bas donc leeral ne leen bëggoon ñëw pour jox leen jërë ngeen jëf ñu ngi sàkku nag ay ñaan ci ngeen ñaanal ñu bu baax a baax a baax ba yàlla mu ñu aar yàlla sàmm ba affaire merci beaucoup